Babou Xees ak Juuse ñaari xale yaa ngi lewtoo combat bu nar a gaaw lay doon ndax xale yi ku ci nekk yaa ngi gën di sa morom day gaaw Babou Xees Juuse ay ca <laughs> dara amul bu ñu sigee rek mu sotti Ségi Dóor du Ségi Dóor xale bi sigi na moom it di fay Pape Xees ñu ngi xaax ñu ngi xaax ñu ngi xaax <laughs> loolu mën la sotti taxawaay bi la mën ta sotti Pape Xees Juuse bëtt na la war na loo ba na la da ngay dem ma paa bu xees daan na jos paa bu xees il est excellent Ibrahim paa bu xees il est excellent aar bi waa nee lu tax bëre lu neex Lamine Sène koy gët di dóor ah ba ah fayu na reprise remise remise la dal na dal na Papa Xees su ma doon moom damay ci xees ci xeex Ibrahim ndax moom xeex bay gën a wóor waaye juuse li mu gisee mel nañ dafa gaañu day bañ a sigi arbitre bi gisee nga dafa blessé waaye gaañu na. ñu ngi xeex. Abu Xeer Juuse faqat ba fam ko jaaroon fam ko jaaroon waaye bi yoon defe naa dara wuute bëtt na ko jaar ci boqataan yi da koo bëgg a takk buddi mu jóg Pape bu xees bu sigee rek Birame dinañ ko buddi Pape bu xaas boo sigee buddi la Pape xaas boo sigee da ngay booy sigi di te position boobu day compliqué nangul paabu xaas gorel booy sigi di jóg booy sigi di wara gi fi mu tee baax na rasu rek dem nga da ngay mbot ma la ko a dolli takk nañu la <laughs> Pape bu Xees xale na la dang mbonaat na ko ay Pape bu ay Pape bu Xees Birame kii mooy Pape bu ay Pape bu Xees Birame lan la kii mooy kan Birame kii mooy kan kii mooy kan Bune kii mooy Pape le Plan Birahim Pape bu xees a ngi noonu